boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo la moo jaaroon la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha

ilaha illallah la ilaha illallah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 melokaanu néew. melokaanu néew. moom la fi war a toogee. am néew kat. am néew kat. du yëngal benn cër. du yëngal benn cër. ci kanam way dund ya. ca kanamu way dund du aaye benn cër ci kanamu way dund benn cër ca kanamu way dund ya. kon bu nekk ci kanamu sëriñ bi di yëkkati suñu kon ne bu nekkee ci kanamu sëriñ bi di yëkkati suñu kàddu. kàddu ndigal lay doon. kàddu ndigal lay doon. waaye kàddu bu dul rek. waaye bu dul kàddu ndigal. kaddu mooy la. waroo toog fi kanam sëriñ bi. waruñoo toog fi kanamu sëriñ bi. di yëkkati suñu kaddu. wala ñu yëkkati suñu benn cër. waaye li ñuy bëgg kaddu yi ñuy bëgg a yëkkati nag. waaye nag kaddu yi ñuy bëgg a yëkkati. kaddu yu ndigal la. kon ci ndigalul sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Mourou Moustapha Fall. ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue. muy joxe kaddu. muy joxe kaddu. maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall. nga xam ne mooy jëwriñam. moo yor kàddoom. kàddu yooyu muy wax itam. xam naa lim lim tur yi moom. xam naa lim tur yi day moom. mën naa indi sax njuumte. mën naa indi sax njuumte. wala mu indi fàtte. waaye boo nee njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp. kenn kenn desatu ci. ku meñ ku meñ sa wajur. ku meññ sa waajur. ngay ab sët. seex boo xam ne meññ seex daa sedd sa maam. ba seex boo xam ne seex bi maamam. na ñëpp. nee na boole na ñëpp. njabootu Seex Faal moom. njabootu Seex Faal moom. kon kenn desatul rek. kon kenn desatul. kon ci ndigalu sëriñ Amdi Faal moom sëñ Moodu Benn Faal. ci kàddu jóoru ñoom ji di Seex Faal. sëñ baa ngi nuyu bokk jullit yi fi teew yëpp. di nuyu bokk taalibe yëpp. di nuyu bokk taalibe yëpp. di njabootu Serigne Touba. di njabootu Serigne Touba. di njabootu Cheikh Ibrahima Fall. di njabootu Cheikh lu bare bare bare. mi ngi leen di nuyu lu bare bare bare. di leen sant bu baax. waaye bu baax. di leen gërëm bu baax. di leen seen i ci kaw nag seen jëf. ndigal li xam ni. ndigal li nga xam ni. Serigne moo ko jëloon. Serigne Touba moo ko jëloon. teg ko ci loxol Cheikh Ibrahima Fall di sëriñ Amdi Faal moom sëñ Moodu Mbenda moom itam mu jël ndigal li moom itam mu jël ndigal li jox ko ñu bokkal Seex Ibra Faal ñëpp muy fukki kër yi ak benn ak seexi Seex Ibra Faal yi Seex Ibra Faal seexul seen maam ndigal li ba leen ko jotalee ndigal li ba leen ko jotalee li jëriñ ci ndigal nee na liy njëriñ ci ndigal dañ koo def dañ koo def de dañ koo bànneexoo lool dañ koo bànneexoo lool safoo ko lool jàpp ko lool jàpp ko jëfe ko nag jëfe ko nag ba ni ko borom ndigal li bëgge ba ni ko borom ndigal li bëgge woon ngeen ngeen jëfe ko nii ngeen jëfe ko loolu tey jii kat nee tey jii kat ku jaar ci corniche bi ngeen bàyyi ko ku jaar ci corniche bi ngeen bàyyi ko jaar ci marché occas bi jaar ci fee ñuy wax ngelamu ca kàmb ga jaar fee ñuy wax ngelamu ca kàmb ya dañ xam ne Seex Ibra moom danañ xam ne Seex Ibra Faal moom ah, àndug Serigne Fall àndug Serigne Touba ci ay wax. àndug Serigne Touba ci ay wax. jëf la jëf la ñu ànde. jëf la ànde Serigne Touba. yéen jëf ji nag. nee na jëf ji nag. seeral seeral ngeen ko. seeral ngeen ko. loolu sëñ Abdoulaye Mbacke waxoon sëñ bi day loolu sëriñ bi ni ko suñ ñaari kër yi day ni ko suñ ñaari kër yi day daa am bañ daa am bañ kër gi ma ne kër gi ma nekk. muy kër sëñ Touba. muy kër sëñ Touba. ku toog fi ma toog. ku toog fi ma toog. war a digle digle woo. war a digle ci digle woo. war a tere tere woo. war a tere woo. bu ko defee toog fi ma toog de. soo ko defee toog fi ma toog. lekk nga ma ñëw kër sëñ Touba. lekk nga ma ñëw kër sëñ Touba. yéen seen kër kër goo xam nga nuy mañam ma sëñ Moodu seen kër googee xam nga nuy mañam ñu ko Mbàkke bëgg nañ koo xam sëñ Moodu amit ni ko Mbàkke bëggoon nañ koo xam muy ndigal ko sëñ Touba mu ne ko ndigal bàyyi ko kër sëñ Touba ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall te jëfewul ko buñ ko defee day buñ ko defee lekk ngeen mañum kër Cheikh Ibrahima lekk ngeen mbañum kër Cheikh Fall ma day mbañum kër Cheikh Ibrahima Fall ma lekkuleen ko tey ji lekkuleen ko sëñ Fall nee na sëñ Amdi Fall na ko sëñ bëggee woon de. nee na na ko sëñ bi bëgg woon. defe ngeen ko nii. nee defe ngeen ko nii de. cant yi daa mënut a ñàkk. cant yi nag daa mënut ñàkk ci yéen. ci lam yi ngeen di ko dégg. ci aw lam nañ ngeen di ko dégg. waaye sëñ bi daa wax ne ndigal lu ne. waaye sëñ bi daa wax ne. ndigal lu nekk. dafa am lu koy booleel. dafa am lu koy booleel. boole ko ak ndigal la joxe. boole ko ak ndigal la joxe. lay tax mu xam ne joxe nañ ko. lay tax. mu xam ne jëfe na ndigal la lam ko booleeloon lam ko booleeloon loolu la dul gisati loolu la dul gisati mu xam ne kon jëfe nañ la mu waxoon mu xam ne kon lam waxoon jëf nañ ko suñ ko jëfewul nag waaye buñ ko jëfewul loolaay dellu fa moom loola mooy dellu si waat ci sëriñ bi mu xam ne kon jëfewuñ ndigal mu xam ne kon jëfewul ndigal la waaye yéen fi ngeen toll tey jii waaye ñun de fii ñu toll tey sëriñ Tuubaa mi digle woon ndigal li sëriñ Tuubaa mi digle woon ndigal li ak seeram mi ko digaloon ak seex na faal mi ko digaloon tey jii xam nañ ni tey jii xam nañ ni lañ bëggoon defal leen ngeen ko lañ bëggoon bàyyi faal def nañ ko yéen tam xam ngeen tey jii. yéen tamit na ngeen xam ne tey jii. seenu bëgg. seenu bëgg. Serigne Touba Cheikh defal na leen ko. Serigne Touba Cheikh Fall defal na leen ko. kon nan rafetal suñu jot bu baax. feddali suñu laxasaay bu baax a baax. nee na leen amul lu dul moom. muy Serigne bi. ñu gën koo jàpp bu baax. ak taali bi moom. ak taali bi moom. du lu ñuy wax. du lu ñuy wax. lu ñuy jëf la. lu ñuy jëf la. ko jëfee ba noppi nag soo ko jëfee ba noppi mën ngaa bàyyi sa bopp nag ki jëf ki nga jëfaloon mën ngaa bàyyi sa bopp ak ki nga jëfaloon mu jottali la cant ak ngërëmam mu jottali la cant ak ngërëmam kon cant yi ni jox sëñ mbooloo mi ñu bokkal liggéey bi kon cant yi mu jottali mbooloo mi ñu bokkal liggéey bi du samay kàddu de nee na du ay kàddoom de moom sëñ Fall du mag fii itam magu fii de rawul fii itam rawul fii mu toog de gënu fii itam fii mu toog it nee na gënu fii ndigal rek la fi waxee kon nag kon nag sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi ngi jotali kàddu yi Cheikh Moustapha Fall mi ngi jotali kàddu yi Cheikh Moudou Moustapha Fall mii toog sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Moudou Mbend di Cheikh Amdi Fall moom sëriñ Moudou Mbend Fall sëriñ bi daal leen xolam sedd na guy nee na sëriñ bi daal xolam sedd na guy sant na leen lu bare bare bare sant na leen lu bare bare bare gërëm na leen itam gërëm na leen itam ndigal nag loolu loolu ci doon wut nee na ndigal li nag loolu lañ ci doon wut ngërëmal sëñ bi lañ ci doon wut ngërëmal sëñ bi lañ ci doon wut ak xolam bu sedd ak xolam bu sedd loolu mooy mën a tax loolu mooy mën a tax liñ ci bëgg ñu itam liñ ci bëgg ñu itam ñu am ko ci ñu am ko ci kon sëñ bi nee na fu waay mën a ne kon sëñ bi nee na fu waay mën a nekk yaakaar na ci Cheikh Ibrahima Fall. te sa yaakaar nekk ci Cheikh Ibrahima Fall. nga nekk ci penc mii. nga nekk ci penc mii. wala nga nekk ci dëkk bii. wala nga nekk ci dëkk bi. wala nga ci réew mi. wala nga nekk ci réew mi. wala nga nekk bitim réew. wala nga nekk bitim réew. sëñ bi nee na xolam sedd na guy ci yéen. sëñ bi nee na xolam sedd na guy ci yéen. sant na leen bu baax a baax a baax. sant na leen bu baax a baax. gërëm na leen bu baax. gërëm na leen bu baax. kenn yaakaar ni. nee na bu kenn yaakaar ni. lii agsiwul ci yow. lii ñuy wax agsiwul ci yow. xanaa ku ci jëful dara rek. xanaa ku ci jëful woon dara rek. waaye lu ci waay jëf day. waaye koo xam ne yaa ngi dégg wax ji ci jëful ci. war ngaa rafet njort ci ni. war ngaa rafet jëf ci nii. sëñ bi lii wax maa tax mu koy wax. sëñ bi lii mooy wax lu maa tax mu di ko wax. waaw sëñ bi daal sant na bu baax. sëñ bi daal sant na bu baax. gërëm na bu baax gërëm na bu baax. ñu ngi sant nag. nee na ñu ngi sant nag. rakki boppam yi nga xam ni. rakki boppam yi nga xam ni. moom ñoo bokk Cheikh Ibrahima Fall. moom ñoom ñoo bokk Cheikh Ibrahima Fall. te bi ndigal a ñëwee mu tabal ko ci ñoom. te bi ndigal a ñëwee mu tabal ko ci ñoom. waaw sëñ sëñ Modou Moustapha Fall. Cheikh Modou Moustapha Fall. ak njabootam ak njabootam sëriñ Cheikh Fall mii. sëriñ Cheikh Fall mii ñu doon tudd. ñu koy wax sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue. moo nekk ci boppam kër kon nee na mi ngi sant njabootu Cheikh Modou Moustapha Fall gi. ak ñi bokk Cheikh Moustapha Fall. di ñett di sant sëriñ Cheikh Cokke Fall. di sant it sëriñ Cheikh Cokke Fall. ak mboolem njabootu sëriñ ñëpp. ak ñi Xëy Fall di sant sëriñ Abdou Mame Xëy Fall moom sëriñ Mor Talla Fall moom sëriñ Mame Mor Talla Fall ak mboolem njabootu sëriñ Mor Talla Fall ak njabootu ak mboolem njabootu sëriñ Mor Talla Fall ak mboolem ku bokk ci kër ga rek ak mboolem ku bokk ci kër ga rek di sant nag sëriñ Amdi Fall moom Cheikh sëriñ Assane Fall naa la ko sant ñu di ko wooye sëriñ Amdi Xëy Fall sëñ baa ngi koy sant bu baax a baax ak mboolem ñu bokk sëriñ Assane Fall ak mboolem njaboot yëpp Serigne Cheikh Fall Mbawar moom si Yali Fall Mbawar Serigne Cheikh Fall Mbawar ak mboolem jëmale si Yali Fall Mbawar bi sëñ baa ngi leen di jotul ay kenn ak ngërëm ak mboolem njaboot ga ak murid yëpp Serigne Talla Fall moom sëñ Ibrahima Fall la moom maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Talla sëñ baa ngi leen di jotul ay kenn ak ngërëm ak mboolem jëmale si Ibrahima Fall la góor jigéen mag ak ndaw. des na góor ak jigéen mag nga ak ndaw. Serigne Cheikh Ngounda Fall. moom maam Saliou Fall. moom maam Saliou Fall. caatu maam Cheikh Ibrahima Fall. Serigne Cheikh Ngounda Fall da ngay jot lay jot yoon la ci gërëm. ak mboolem ñëpp maam Saliou Fall nga jot sa ginnaaw. ak njaboot yëpp. ak góor ñëpp. ak jigéen ñëpp. di sant seen famille Fall. moom si ñebe sa góor Fall sax yaay def ko sax. ak mboolem ñëpp si ñebe sa góor Fall. sëñ baa ngi sant ñëpp sëñ Fall di gërëm ñëpp sëñ Assane Fall maam Saliou Fall moom maam Saliou Fall ca Daaru na Fall mooy seeti nga Fall mooy maam Saliou Fall sëñ baa ngi nee na mi lay sant ñëpp sëñ bi nee na mi lay sant yaa ngi boole njabootu maam Saliou Fall yaa ngi boole njabootu maam Saliou Fall góor ak jigéen mag ak ndaw ak murid yëpp sëñ baa ngi sant nag sëñ baa ngi sant nag ñi nga xam ni ñi nga xam ni Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall moo seexaloon seen maam Cheikh Ibrahima Fall moo seexaloon seen maam ñoom ñëpp a ngi fi teew ñoom ñëpp a ngi fi teew sëñ baa ngi sant wala Cheikh Fall seexaloon seen sëñ baa ngi sant moo leen ñi Cheikh Ibrahima Fall te bëdul seen maam muy seex si nee na seex sëñ mi ngi ñëw la yoroon di Cheikh Fall ñoom ko seen maam sëñ daam mboolem seet si amoon na seet yoo xam lan yoroon te laa ko fax dafa ko séddee ba xam. mboolem njaboot ga ànd moom lépp ñëw. njaboot ga ànd na mbooloo ba lépp ñëw mu si si dem dafa xam ko ñëw. ba li si dem dafa bëgg lépp. sëñ Aliou Fall. sëñ Aliou Fall. moom sëñ Talla Yacine. moom sëñ Talla Yacine Fall. moom sëñ Bassirou Fall. moom maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Bada sëñ Bada yu ànd ci gërëm. yaa ngi mboolem ñu nga bokkal seen Basiru Faal bokkoo ñoom sëñ bokkoo ñoom it sëñ Mortala Faal dafa nee rafet na lool nee na taxawaay rafet na lool dësu gisuñu fenn nee na gisuñu fenn kon sëñ bi nee na kon sëñ bi nee na cant yi day cant yi day bañ moom waaye sëñ am fa am nee na fii mu toog fàttali kenn moom ñëpp dañ ci xelam nee na ñëpp ñu ngi ci am xelam ñu ngi ci am dënnam ñëpp dañ ci xelam ñëpp ñu ngi ci xelam la sëñ Tuubaa indi woon ci moom la sëñ Tuubaa indi woon ci moom mii nag muy jox leen ko muy jox leen ko nga dégg ko ba ngeen dégg ko jëfee ko na nga ko bëggee woon nee na jëfe ngeen ko na nga ko bëggee woon kon xolam seen dugg yi kon xolam seen dugg yi waaw sëñ Cheikh Ndigal Fall nag sëñ Cheikh Fall borom ndigal moom sëñ Cheikh Fall bàyyi ko mooy noonu mooy moom rek sëñ Fall kooku boo ko waxee mooy yow yaay moom Fall ndigal ak taaw yëpp kon sëñ Cheikh Fall ndigal koo xam ne si mënum soifal sa maam koo xam ne si mënum soifal sa maam nga ànd ak ñun ñi nga xam ñoo jot kàddu yi nga ànd nga xam ne ñoo jot kàddu yi ak sëñ Cheikh ndigal moom nga xam ne ak sëñ Cheikh Fall nga xam ne taxawaay bi ku la gis na ko taxawaay bi gis na ko ñun ñu toog fi ñëpp gis na ko bu xëyee suba nee bu xëyee suba fa la fa la fa la ñëpp wàcc bàyyi ko fa fa ko ba jant soo ba jant bi mu dem fanaani ba suba. mu dem fanaani ba suba. xëyaat nee mu xëy. jàmbaar la ci liggéey bi lool. nee na jàmbaar la ci liggéey bi lool. si daan solo taxaw na ci lool. taxaw na ci lool gis nga ko. jàpp na ci lool. nee na sëñ bi nga jàpp ci liggéey bi. waaye ku tudd daal ak ku tuddul. waaye sëñ Fallou nee na ku tudd ak ku tuddul moom. sëñ bi daal mu ngi leen xamal ni. sëñ Amdi Fall ñu koy wax loo mi ngi leen xamal ni. lam bëggoon daal def ngeen ko. lam la ngeen doon bëggam defee ko jiw ko. def bëggu sëñ bi nag. nee na def bëggu sëñ bi nag. ci la saa mën def suñu bëgg. ci la suñu borom di jaar def ci suñu bëgg. dinaa def na la mu bëggoon. dinaa def na li si si bëggoon. li mu bëggoon suñu defal na ko. li mu bëggoon suñu defal na ko. aaj yëpp suñu faj na ko. aaj yëpp suñu faj yi ngi nii toog suñu ngi nii nee naa yëpp suñu faj la faj. déggal nañu bàkkaar nee na bàkkaar yi suñu nee na wut suñu defal nee na tax ko doon na bàkkaar. nee na jéggal nañu ak ñu la am ak ñu kon nee na ñu ngi ñaanal fan yi ko sëñ daal solo. wax na ko gën a si daal solo ak xew ni ñu ba nit la ko jëlee ñu mën ko di ko defal waxtu wu nekk nee na wax ji moom mën naa bañ a gudd ndax jërëjëf moom ak ak merci ak merci ñaari baat yooyu ñaari baat yooyu sa jaam yaakaar naa la koy wax du la mere yaakaar naa la koy wax du la mere waaw bu bu merci bu merci sëñ bi daal tubaab ku mere merci liggéey ab liggéeykatu yàlla yi tam. kenn du ko kenn du na ñun tamit suñu xol dana na suñu daan ko yeesalal. na ko gën a jàpp. na ko gën a jàpp. suñu ndigal tey yi lii day. na ne. wan na ne. li suñu na ko. Cheikh Ibra na ko. te dina ko def. ndigal nañ ci kanam loo xam ne ndigal nañ ci kanam loo xam ne ndigal bu yàgg la. ndigal bu yàgg la de. wala seen tubaab moo ko digaloon Cheikh Ibra Fall. loo xam ne ko digaloon Cheikh Ibra Fall. bàyyi ko ci loxoy waajur yi. bàyyi ko ci loxoy waajur yi. loxoy bi sëñ Modou Mbène. ci Cheikh Moussa Fall bi sëñ Modou Mbène. mu yore mu yore mu yore liggéey bi. muy yor koor bi ñu jëm. muy yor koor bi ñu ñëw na. weer koor bi nag ak si mel na ni waruloo bett nag. mel na ni waruloo bett de. ja ja loolu dina bett. loolu dina bett. te koo di commencé sama ngeen damaa bett. te koo di commencé sama ngeen damaa bett. sama ngeen damaa bett. sama ngeen damaa bett si la. da nga am xarum tudd rek. da nga am xarum tudd rek. da ko amul rek. da ko amul. waaye ku am xarum tudd. waaye ku am xarum tudd. sa ngeen wër laa bett. sa juróom-ñeenti weer. ndax juróom-ñeenti weer. nga ànd koo nit. nga ànd koo nit. mu yor loo xam ne dana mos a ñëw. mu yor loo xam ne dana mos a ñëw ku yàlla dogalee. mu agsi. mu agsi. nga naan dama bett. nga naan dama bett. loolu ñàkk loolu ñàkk jëkk. loolu ñàkk jëkk. waaw parce que ñun tam weer koor bii. kon ñun tam ñun bàyyi ko. weer koor bi. waruloo bett. waruloo bett de. ndax fukki weer ak ñaar la. ndax fukki weer ak ñaar la. te bis bu nga dégg ko ci ngénte. te bis bu nekk nga dégg ko ci ngénte. gis ko ci amul dëj. gis ko ci amul dëj. gis ko ci amul am ceet. gis ko ci amul ceet. rajaay nag ma ay xar gis nga magal rajaay nag ma ay xar lu nekk def ko ci lu nekk nga def ko gis nga weeru koor wi nga xam ne weeru koor wi nga xam ne la ñun mooy suñu dund mooy suñu dund ñun Baay Faal suñu koom ñu di suñu koom di suñu alal di suñu alal waruloo bett waruloo bett mukk nan ko waajal baax nan leen waajal koor weeru koor wu mës a ñëw weeru koor wu mës a ñëw nag ñu àgg ci ak jàmm ñu àgg ci ak jàmm yàlla ko yu fooxa yàlla ko wéer yu fooxa buñ ci àggee buñ ci àggee li ko sëñ bëggee li ko sëñ andi fan bëgg yàlla ko ni mën a yàlla ko ni mën a ñun ñëpp defal ko nag bëgg defal ko nag ak bëgg ñaanal loolu ñu ko ñaanal mu ñaanal ko murid yëpp moom it mu ñaanal ko murid yëpp murid yi fi teew yëpp nag murid yi fi teew yëpp nag ñu fawaat seenu bëgg ñoo fawaat seenu bëgg ak seen yéene ak seen yéene ak seenu ñaan ak seenu ñaan ak seenu cant ak seenu cant di ko jëmale ci sama suba mi toog di ko jëmale ci sama suba mi toog sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbène muy sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbène Fall yéen sa borom gën na ko bàyyi ñu ngi ñaan yàlla ko ñu ngi ñaan yàlla ko li mu bëgg lépp ba li mu bëgg lépp bu ko defal maam ju baax ji bu ko defal sëñ Tuubaa bu ko defal sëñ Tuubaa mu def ko na ko yëpp ànd ko mu yëpp ànd ko mu yëpp di ñaanal sa ngam ba nag di ñaanal sa sa ngam Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Cheikh Mamadou Mountakha problème ko xay mënu suuf sa borom gën fee bàyyi suñu borom gën fee bàyyi ban naa li ñaanal maam yëpp ban naa li ñaanal maam yëpp fas yéene liggéeyal lislaam fas yéene liggéeyal lislaam suñu borom bàyyi ko fi suñu borom bàyyi ko fi mu def ko na mu ko bëggee ba mu def ko na mu ko bëggee te ànd ko noonu mu yëpp te ànd ko noonu mu yëpp waaw Sëñ Abdou Karim Mbacké di sëñ Abdou Karim Mbacke fan la moom sëñ Fallou moom sëñ Fallou ñu koy wax makaarimul axlaaq ñu koy wax makaarimul axlaaq nga xam ne ku ne dégg na aw turam nga xam ne ku nekk dégg na aw turam waaye nag defe naa liggéey bii waaye defe naa liggéey bii ku nekk gis jëfam ku nekk gis ci jëfam jëf ji mel noo xam ne jëf ji mel noo xam ne rafet lool nee na rafet lool rëy lool rëy lool lépp nag nee na lépp nag seera fal tax mu koy def seera fal sa moom moo wax mu ko def baa ngi seeral ni kon sëñ baa ngi seeral ni sëñ Abdou Karim Mbacke liggéey sëñ Abdou Karim Mbacke liggéey bi ak si na sëñ Abdou Mbacke bi sëñ Fallou sëñ Abdou Mbacke Nourou Darayni Touba ca kanam nga xam ne mooy Nourou Darayni Touba ca kanam nga xam ne mooy Nourou Darayni Touba ca kanam ñoom day ah Touba ca kanam day fekkoon nañ Touba ca kanam de bu fekkoon fekkoon nañ ñoom Touba dem kanam waaye wane nañ ko nag waaye ñoom day delloo ñu wan ko wane nañu Touba moo nekk ca kanam wane nañu Touba moo ca kanam ndax seen jëf ji ñu jëf ci liggéey bii day ndax sëñ andi nuuru daay Touba ci kanam seen jëf ji ñu jëf ci liggéey bii ñëw na ñoom seen i jëmm wane nañ seen i jëmm ñëw na ñoom seen jëmm ñëw na ak seen i jëmm ñëw seen i matériel ñëw ak seen ñëw seen doole ñëw ak seen doole ñëw ak seen wërsëg ànd ak ci liggéey bi nag ànd ak ñun ci liggéey bi ba màgg fii tey ba liggéey bi si si mës kon sëñ bi Fall nee na kon sëñ bi Fall nee na waa Touba ca baa ngi léegi baa ma li rek nee li ma waxoon léegi waaye njabootu Cheikh Ibra Fall gi moom waaye njabootu Cheikh Ibra Fall gi moom ku ko wax moom ngay kenn génnatul nee na kenn génnatul sëñ Cheikh Bintou Fall sëriñ Cheikh Bintou Fall moom sëñ bu daal moom bu ma tuddee bàyyam bii toog nee na bu tuddee bàyyam bii toog tudd magam yi toog tudd magam yi toog kon war naa xam ne mi ngi seen biir kon war naa xam ne mi ngi seen ko de te jëmm bu teewee nag jëmm bu teewee deesu wuti mbubb di ko di ko nat deesu wut ay mbubb jëfam ji ci yoon wi. jëfam ji ci yoon wi. ak liggéey maam ji. ak liggéey maamam bi. ku nekk ku ne gis ko. ne ko. jëf moom. jëf moom. ki ko ki ko jëf. ki ko jëf. soo ko ñaanee. soo ko ñaanee. moo ko moom. moo ko moom sa jëf bi tuut. soo ko yéenee moo ko moom. soo ko yéenee moo ko moom. ndax jënd la. ndax jënd la. jënd bokkut ak may. jënd bokkut ak may. bokkut ak abal. bokkut ak abal. li nga jënd moom. li nga jënd nag. yaa ko moom. yaa ko moom. kenn mënu ko nangu. kenn mënu ko mbaa may la ko mbaa ñu may la ko suñ la meree suñ la meree mas na ko nangu mas na ko nangu mbaa ñu weddi ko mbaa ñu ko waaye waaye jënd moom kenn mu yor da koo jënd te mu yor da koo jënd kon nag sëñ bi daal kon nag sëñ mi daal nangu jéglu ci kàddu yi sëñ Fallou nee na ñu ngi tuub di jéglu nag di yëpp nag nee na mi yëpp ñun ci waar yi nee na moom day nekkoon ci waar di gis murid yi seen jëf di gis murid yi seen jëf ak seen pëstéef gis seen pëstéef ak seenu bëgg ak seenu bëgg ak seenu nangu ak seenu nangu nga xam ne moom liggéey bee dem ba jeex liggéey bee dem ba jeex waaye ñoom du jeex mukk waaye ñoom du ñu xëyee rek waxtu ñu xëyee dañuy gën a bëgg dañuy gën a bëgg li suñu bëgg ñu man ko li suñu bëgg ñu man ko ba defal ko rek ba defal ko ko kon nag nee na kon nag. noonu lay noonu lay seeral nii. noonu lay seeral nii. ñun ñi nekkoon nañu ci liggéey bi de. ñun ñi nekkoon nañu ci liggéey bi. seen jëf ji ñu doon jëf. seen jëf ji ñu doon jëf. te ba ñu ko ko fay. nee na ba ñu ñu ku leen ko fay ñoom ko waaw ndax xam nañ ni. ndax xam nañ ni. def nañ li Sëriñ Tuubaa bëggoon. def nañ li Sëriñ Tuubaa bëggoon. def li Sëriñ Faal bëggoon. def li Sëriñ Faal bëggoon. kon nag ñoo ngi lay ñaan. kon nag ñoo ngi lay ñaan. ci maam ju baax ja. ci daraja sa maam ju baax ja. ak sa ngam ba. ak sa ngam ba. aaji murid yi fi teew yëpp. aaji murid yi fi teew yëpp. fajal aajo yëpp. fajal aajo yi fa kenn ñàkkati dara. bu kenn ñàkkati dara. xanaa lu muy ñàkkati. xanaa lu muy ñàkkati. mooy lu ñu ko digalul lu ñu ko digalul rek. mooy lu ñu ko digalul rek. waaye ndigal daal. waaye ndigal li daal. lu muy jëriñ lu ne. nee na lu muy jëriñ lu ne. ñoo ñaan sa borom defal na ko. ñoo ñaan su borom mu defal na ko. ca sax saxal lu ca. ca saxal lu ca fa. barkeb Sëriñ Tuubaa. barkeb Sëriñ Tuubaa. barkeb Sëriñ Tuubaa. nee jërëjëf. jëwriñ Cheikh Fall bi di Sëriñ Amdi Fall moom Sëriñ Modou Mbenda Sëriñ Amdi nag mi ngi nii toog jataay bii moo ko sakkul boppam ndax moo waxal boppam ni naa yëgal mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo newoon ci ndigal lii ko sëñ Tuubaa digal te def ko nii ko sëñ Tuubaa bëgge naa leen wax ñoom ñëpp ne leen lii ak bëggam mooy ñoom ñëpp ñu maase teew fi kanamam loolu sëñ bee ko waxoon wax sëñ Fall léegi de. ñu yaatal ko si murid yëpp. lam sa jublu ak lam bëgg nag moo ko xam. waaye xam nañ ni njariñ rekk lay doon. kon sëriñ bi mi ngi jottali ay cant ak ay gërëm. du ma si dellu sëriñ Fallu di jëwriñu sëriñ bi wax na lépp mboolem li nga xam ne moo doon kàddu sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñam di Fall mu sëriñ Modou Mbenda sëriñ Fallou yàlla na yàlla guddal saw fan te wéral say cër liggéey bii taxawu nga ko taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat sëkk la ànd ko mboolem say rakk waaye jiital mboolem ñi nga xam ne ay kilifa la say kilifa la muy ñu fi teew te sëriñ bi tudd leen sëriñ Fallou seere ko waaye nun ñi nu mat si seere ndax sëriñ bi danoo jàppoon yónni ñu

xamal na leen ndigal rot na fi te ndigal ñun noo ko kon dañ koy ànd rek di hmm. kon kenn ku ne yëg nga sa bopp ci liggéey na ko moo tax cant yi ak ngërëm yi gannaaw bi sëriñ bi sante Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne moo ko jox ndigal te moom ndigal jëfe ko wax na ni moo ko fi te moo ko fay mu koy ñaanal fa nu ko dëkk yàlla dëgëral ay cër ba mu mottali li yéene dafa seet dañoo di sant njabootu Sëñ Tuubaa sant Sëñ Tuubaa sant njaboot ñoom ñëpp si taxawaay bi sëriñ Fallu am na lu ñu si waaye la si topp mooy sant njabootu boppam ji muy njabootu Maam Cheikh xam ne tey jii kër Cheikh Ibrahima Fall la ñuy wax waaye boobu kër kenn fii Cheikh Ibrahima Fall moo fi teew ndax lii teew bokku Cheikh Ibrahima amul kenn koo xam ne yaa tànn na bokk ak maam Cheikh si maam Cheikh Ibrahima si soobare rek la la boole si maam Cheikh Ibrahima kon loolu dundal ko fonk ko nangu ko dogal suñu borom te moom la sëriñ bi Fall doxal waaye si la ko njabootu Cheikh Fall gépp la ko wuj si muy ànd bi nga xam ne suñu borom wala ñu boole rek ñu war koo ànd te dara waru si yàq dara lu mu xam naa lu ci mën a ndaw suñu ndaw ñu ñu yebal waaye moom mat na sëkk ndax mu war a def rek mi ngi koy def waaye lu mu war a wax mi ngi koy wax kon sëriñ bi sëriñ baa ngi leen di sant sëriñ baa baa ngi leen ñu bokkal na ma Cheikh Ibrahima la ko bëgg sëriñ sëriñ baa ngi la ko waxee mboolem ñi nga xamante sëñ bi waa daa gërëm moom seen maam Cheikh Ibrahima daa gërëm moom seen baay wala mu gërëm seen wajur wala mu gërëm seen maam wala ku bokk ci seen wàllu Cheikh Ibrahima gërëm leen te ñu ngi leen tudd ay cheikh ñoom ñëpp ànd nañu ànd ak sëñ bi ci la liggéey def ko dafa sëñ bi sëriñ baa ngi sant taalibe bi yëpp góor ak jigéen yi mag ak ndaw si li weesu ak biir loolu ak lii nga xam ne lépp jëfal nañ ko sëñ bi dafay mel ne ndigal lii nu bàyyi koo tey bu nu ma seetloo ndigal lu jafe la bu ma seet amit ba ndigu waaye nii bu demee ba taxawoo ba mu àgg ba mel ni ko sëriñ bi ni ni gënal sëriñ bi loola moo tax sëriñ bi sakku ñun ñëpp ñu ñëw teew sa kanam mu xool ni ñu jër ma de mu ñaanal ñu mu sant ñu mu gërëm loolu la sëriñ bi kon ñun kat li nga xam ne moom la day cat jëm ci ñi nga xam ne ñoom dañoo am ab taxawaay ci ngëm yi nga ne sëriñ bi dafa muy ñi nga xam ñëpp ba ñu diggee ngëm te xam ne war nañ see am wala wala ab cër lu mu ci dox ñoom ñëpp taxaw nañu ngir liggéey bi ñu bay ci seen laaj ba liggéey bi mel ni ko ngir ni ko sëriñ bi loolu bokk na am na ñu màggee ñu jiite ñu waa si kanam te leen dund sant ko ci taxawaay bi mu am sant ko ci jiite ñu wax si liggéey sant ko ci yëg gi mu yëgee Cheikh Fall li liggéey ñëpp ñëpp ko gis si waa lii Cheikh Fall kese la si waa kanam ngir mu gëral ko ngir mu sàmm ko ngir mu dee sëriñ bi bu keroog bi ndigal li rotee sëriñ bi jabal moom sëriñ Fall nu dem fa moom ba nu eggee dafa wax ni nu ko sëriñ bi bëggee ma ne ko sëriñ bi de daa bëgg taxawaay ñu ci war a am nu am ko waaye dafa waxoon ni du yëkkati dara loo xam ne ndigal lu jóge kër sëñ Tuubaa ñëw fi moom te dikkul dikkul yëgalu la ko ba nga yëg ko ndax xam na sa yitte ak sa taxawaay si ndigal yi jóge kër sëñ Tuubaa ñëw kër Cheikh Rafa mu ne ma fas naa yéene kuréel gi nga xam ne moom laa jiite muy Tuubaa si kanam lépp lu fi nekk si jumtuwaay dinaa ko si teg si loxol sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbène daal sa tànn sëriñ di sa boole kook man Mame Mbaye Sylla Mame Mbaye Sylla ne ko bu nekk Touba si kanam te sëriñ Amdi soxla ko na ngeen ko génne dem teg ko si loxol sëriñ Amdi te ngeen ànd ak moom liggéey bi ba mu àgg ñoom ñoo ñu njëkk xëy ñoo ñu ñu ci waaye yëmul si loolu sëñ Fallu sëriñ Abibu dafa see boole daal di santaane nu jël gasoil gasoil bu doy sëkk bu ma ko seetee lim nu dox si gasoil mat na juróom-ñaari junni litre yi gasoil yoo xam ne ñoo ko dindi si Touba si kanam teg ko suñu loxo ñu di ko def si camion yi nga xam ne ñoo doon liggéey mbooleem machine bu fa ne muy pelle mécanique wala muy camion wala muy gradeur wala muy compacteur lépp mu ne na dem sa liggéey bu Cheikh Rafal bi nga xamante ne bii kàmb yi tudd nañ ko te ñu war koo manq dafa daal di woo ay techniciens ñu bàyyi ko Ndakaaru ñëw bañ demee seet dikk ne ko li nu war a def mooy placer fa ay machine ñu commencé manq ndox mi diggante bii Baye Fall di nekk si corniche bi bala noo àggal fekk ndox mi jeex wala mu wàññi ko bu baax a baax noonee lañ ko defee àllarba ja si lañ indi mbooleem machine yi nga xam ne ñoo fa nekkoon di manq ndox mi si lañ ko placé alxames lañ tàmbalee mag ñu tàmbalee liggéey bi ajjuma ñu si corniche bi bañ demee ñetti fan ba ñeent am jëwriñ yu fa dem bañ demee xool ni machine yi dañuy ngi pompé bu baax a baax waaye ndox mi dayo bi dafa dafa bari dafa rëy te jàpp nañ ni suñu continuer si machine yi rek dinañ àggal liggéey bii dikk sa kàmb yi duñ fekk ndox ma jeexee si lañu xalaate ni nañ wuti ay waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy machine camion yi yore yi citerne yi manq foos sëriñ Mouhamed Diop Mouride ànd ak sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Latif ñoo woo ci sama kanam ki nga xam ne moo jiite mbooleem camion benn yi nga xam ne ñooy manq ndox xamal ko yitte ji ñoom it ñu daal ne bis suba suba danañ xëy bu soobee yàlla te nan ko waxee wala nan ko defe am fa ñaari fan yoo xam ne génn nañ fa lu mat juróom ñeenti téeméeri camion ak juróom ñetti fukk yoo xam ne manqué nañ ko si ndox génn ko dem tuuri kon ñooñu sëriñ bi ñu jar a sant la te loolu liggéey bi sëñ Abibu ba ñuy def loolee fekk na amoon nañ xalaat it waxtaan ak camion benn yi nga xam ne ñoo war a sëkk ñoo war a sëkk kàmb gi ñu xam ne li ko war a sëkk du ay caaxaan waaye lu ko jiitu ki ñuy wax sëriñ Mbay Juuf tey taalibe yi taalibe bi sëriñ Cheikh Fall mii te nekk si Enan Chine société bu ñuy wax Enan Chine keroog bi préfet wootee te ma dem ko dinaa egg si préfet dafa wax ni moom de fee ñuy gas ñoom tàmbali seen liggéey muy békaan na te ñu tàmbalee gas fas na yéene lépp luñ fa gas dinañ ko teg def si camion ñu sotti si kàmb bi ba bañ leen fa fekk si te noonu la ko defee liggéey boobu yi bala maa egg si camion benn yi ma wax ci taxawaayu sous préfet bii bu ndaam sëriñ bi sëriñ bi moo woo sëriñ bi moo def moom bi ñuy jóg léegi bi àllarba sëriñ ma woo téléphone ne ma dama bu subaa ci dëkk bi a tàmbali loolu sëriñ sanam ko moom moo ko def si coobare boppam keroog ma demee sa jotaay naa fa commissaire bii nekk jana mu woo fekk naa fa ki jiite waa UCG muy naa fa kenn ku ne si ñoom ak Senelec kenn ku ne si ñoom Babacar maa jël kàddu ne leen lii sëñ Touba sant Cheikh Ibrahima Fall ñun ñu ne si dëkk bii dañ see war a jàpp ba seen a Fall am si ndam te bëgg naa yéen ñëpp ngeen jàpp kenn ku ne jël fa engagement. Senelec moo njëkk jël engagement keroog su suba dana xëy mbooleem courant bi ne ma ci foto si mu dindi ko coupé kon loolu lu ñu waroon dindi rek mu dem dindi ñoom ñëpp kenn ku nekk police gendarmerie kenn ku nekk am taxawaay bu mat sëkk boo xam ne buñ teewee ci seen monsieur bi faw ñu daare ndax lépp Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdallah lañ ko jëfal maire commune bi yebal si ay ndaw wax ne moom liggéey bi moom la waroon moom la waroon mu def ko kon taxawaay si war a ñëpp moom la war daan na wax ne ma lépp luy matériel bu lu ma amul loo xam te ngeen soxla ko wax leen ko bu luyee ko jox ma camion yam yoroon yëpp boole ci dotation gazon boo ko sa taxawaay bu sëkk ko saytu ci dëkk bi mboolem lu ñu tonn fii si mbalit ñoom lañ ko jox ñu yóbbu ko fa leen dara te seen dëkk ko ñu ngi fii sa daraay ñu sa waa Touba wax naa ko léegi ñu ngi fii sa daraay wax naa wax benn camion benn bi bi nu liggéeyee bis bu njëkk ba lañ leen ñaanoon nu may nu ko nu xëy yendu si suba ba ngoon biñ demee ba ngoon ñu am un cinquième ci leen soxla ñu ñëw di leen di leen sant ak di leen gërëm ngir nu dellu ba bis bu nu ko mënatee rek nu dellu si waat ba ma sàkkoo si ñoom ne leen li ñuy sàkkoo bëgg a xam mooy ngeen wax nu rek bis bu ngeen mën a dellu si waat ndax mbooloo mi moom mënuñu leen fee téye te yéen it gannaaw yéen may ngeen bis bii tëj seeni i kàmb tëj seen kër ni ngeen ko baaxoo woon ñun nag dañ leen di yolomal nag ba yéen ngeen seet lu ngeen ko mënewaat ngeen ñëw àggale liggéey bi sëñ Tuubaa ñu ne ñu may leen loolu gisee bàyyi sa kanam ak ñu dem fee gisee daal di dellu si daal wax ne ñun de li ñu jàpp mooy fasuñu yéene jóg si kàmb yii te kàmb bi fi fisu danañ tëj suñu kër mboolem kàmb bu ne diggante Njaaréem Bambey Touba danañ ko tëj oto bu fa ne danañ la indi nga nekk ci liggéey bi ba liggéey bi ak kenn ku ne xam ne bu ñu amoon taxawaay boobu la day tàmbalee ak dafa dem xam te wonkuñu jàmbatuñu laajuñu dara lu dul boole boole si di jël seenu ñaq si def ñooñu mooy seere sëñ Fallu seen taxawaay liggéey fii sëriñ bee sàkk woon ne ñoom nañu ñëw ba jàkkaarloog moom ñoom camion bee nii bàyyi seen kanam ànd naa ñoom ñu jëw seen jëwriñ yi sëriñ bi waxoon nañu ñëw mu jàkkaarloo moom loolu sëriñ bi sàkk woon si ñoom kon foofu ma seere ko si ñoom li si dolliku sëriñ bi wax na ko ko sëriñ Abdou Karim keroog ba liggéey bi tàmbalee la tàmbali di togg ay ñam téeméeri bool ak ñaar ko fukk par bis di ko togg di ko indi di lu mu di ko séddale si bëri boole si sant waa këram yëpp ne leen dem leen sa liggéey Cheikh Fall boobu kooku kenn ko ñàkk ñi si dolliku mooy ñeneen ñi nga xam ñëpp jàpp na si. démb doon naa wax ni ku mel may Touré bi ko man ñu wooyee di ko laaj ay camion ci liggéey bi fekk na amul ay benn nekk ko ay remarque la yónnee ne nañ ci def mbali kooku jar naa sasam kooku yónnee na ay ay ay camion ak ay pelle mécanique ak gone yi ñoo xam ne ñoo ko yoroon ñu taxawoo liggéey ñu taxawoo rafet boo xam ne lu leen sant na def ko kon ñooñu kenn mënu leen ñàkk sant ñooñu xam naa bu ma wéyee day damay juum waaye presse bi ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi ñoo si loolu tax liggéey bi nu mu mel rek taskati xibaar yi ñoo ko mel noonu xam na ñoo ko taxaw taxawaay boo xam ne dëgg bii dañ joxe nañ information juste ndax sa jël benn la amoon ay sooxe waaye soxla yëpp ñoom ñi nga xam ne ñooy presse te doon presse responsable ñoom ñoo war a dugg taxaw dem ba ndigalu sëriñ bi fu mu fu mu àgg fu mu ci toll rek ñu leeral ko ba mu leer nañ ñi ba murid yëpp xam nga ko sëriñ bi bi ñu ko sëriñ bi ak njabootam ne leen dem leen ànd ak sëriñ bi ñu liggéey ba mu jeex ak njabootam ñu ngi woon ci biir mbooloo mi ànd ak ñoom liggéey kenn kenn sëriñ bi bari na xam ne sa taalibe bi ñuy wax ma xafaar oto ñu nekk Ndakaaru yëpp la ci la ngeen mi ngi nii toog am na oto bu daanu sax waaye dana ko ko kenn tudd ndax si liggéey Cheikh Fall la dale te bu ñëpp demoon ba mu feet man dama fay des wéelu liggéey kon sëriñ baa ñëpp sëriñ baa ngi gërëm ñëpp sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp ndax digg lii kat la sëñ la Cheikh Fall waxoon sa carrière ba sa gëstu raay man moom laa wax jëmin dama ne liggéey la boo xam ne ku ko yónni woon sa soxna bu ñëwee di sa borom kër waaye ku ko yónni sa tur la bu ñëwee di sa jàkka ku ko yónni sa taalibe bu ñëwee di sa dëkk ni nga mel nii kenn mosu ko waaye ni ngeen ko taxawoo ba mel nii kenn mosu ko def te bu amee loolu amee njaboot Cheikh Fall gën a taxaw ba mu am jëwriñam yii ak ñoom ñii nekk seen kanam jiitu ci liggéey di yenn ci waar yi ñoom ñii ñoo taxaw lépp lépp solo kon sëriñ bi nee na ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi ñaanal loolu ko sëriñ Fall mi waxee fii bu ñëw amul bakkaar sëriñ dagg ko bakkaar képp ku ñëw fii képp ku jàpp ci sa liggéey bii a aada dafa ñu ëpp na ak àll loolu toogal toogal toogal toogal bul daal bul daal bul daal waaw bul daal sëriñ bi dafa wax na sëriñ bi dañ lay jox rajo da ngay toog dëgg da ngay toog dëgg sëriñ bi dafa wax na bi li nga xam ne mooy dëgg wax ko dëgg dafa am lii bu àjjuma mu ko soob si Touba mu mu yóbbu ko Sëriñ Fallou ñun ñëpp a koy defal ñii di ñii di muy ma njëriñ lii mooy ñi di wut ñun lii mu ñëwoon mooy suñu kilifa moo naan def lu def moo naan bëri lu baax mooy jiitu ci waar bi demoon na ko mooy njëkk a xëy mooy mu jëm lu teg si yoon lu teg si liggéey yii Serigne Ba mu ngi tag nekk moo tax mu def loolu ñëpp xam nañu ñëpp seeral nañ ko kon Serigne baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. li ci des nag sëñ bi ko bàyyi seen mën nag moo ci am kàddu yu bëgg a jot di faal. sëriñ bi ne na ñëpp tàllal seen loxo te nangu ñaan ñaan jii nag bokkul ak ñaan yi daa am de ñaan jii bokkul ak ñaan yi daa am ne leen wér ne aaju jotuwaay yi indi saa borom saafara na ko bis ni ki tey barkab Cheikh Ibrahima Fall.

boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo